Sénégal jaar naa leen màggal naa leen di leen jox seen wàccuwaay balaa may tàmbali vidéo bi nag dama leen ñaan yéen ñëpp ngeen partagé ko parce que yéen doon laaj et oto belende pour président Ousmane Sonko kon partagé leen vidéo bi yéen ñëpp dama yewu tey ci suba jot ay centaine de messages comme dañoo defoon démb vidéo di sàkku ñu utal président Ousmane Sonko oto belende ku ci nekk ci yéen sàkku woon nañu taxawal cagnotte boobu ñu yeewu tey ci suba ngeen gis cagnotte bi c'est très normal ngeen laaj ma ndax dëgg la wala du dëgg may dalal seen xel yéen ñëpp ne leen cagnotte bi dëgg la lancé nañu cagnotte ngir jëndal président Ousmane Sonko oto belende naam sax moom président Ousmane Sonko d'accordul woon ci idée boobu noonu bañ ko ko njëkkee wax dafa ne moom dina rus te dina lott lool ci di dugg ci oto blindé bàyyi ndaw ñu ñu nekk ci biti nekk ci danger mu nekk nag lu ñu mën a comprendre lool ci leader bu responsable mu nekk lu ñu mën a comprendre lool ci ki nga xam ne papa nga mu nekk ci ku nga xam ne lu ñu mën a comprendre la ci ka nga xam ne dangaa war a jiite ëllëg am réew te askan wu ngay jiite nga nawloo leen te askan wu ngay jiite nga am loolu yërmande ci ñoom waaye dafa fekk ne lu mënul ñàkk faw mu am président Ousmane Sonko nekkatul pour Sénégal rek mais dafa nekk yaakaar pour Afrique yëpp ba tax na suñu demee ba maliens yi béninois yi ivoiriens yi ñëpp taxaw pour cotiser yaakaar naa ni yéen sénégalais yi kenn waru leen cee jiitu ndax président Ousmane Sonko yaakaaru continent lëmm la may dalal seen xel kañot bi lu am la te ci loxo yu wér la tegu ñaari numéro yi ngeen ciy seen benn bi Ousmane Diagne la. kenn ki ci des benn taalib saw kon ci ñaari numéro yooyu ku fa dugal sa xaalis sànniwuloo ko ma leen wax que ne ñun dañoo am sas wu rëy mooy le président Ousmane Sonko suñu bakkan bii lañ ci teg war koo protéger incha allahu rabbi ba ñu jot ci pale bi 2024 ndax ci moom la ndaw ñi yaakaar xiif lekk ci moom la ndaw ñi yaakaar mar naan ci moom la ndaw ñi yaakaar feebar faju ci moom la ndaw ñi yaakaar ëllëg am am xëy ci moom la ndaw ñi yaakaar ëllëg paj mu jaar yoon ba tax na képp koo xam ne sénégalais nga ñu ngi lay woo nga ñëw taxaw temm comme niñ ko daan defee ñu war a woneeti suñu doole war a wone ne maanaam ñun dañoo takku def benn say te ku takku def benn say loo songu daan ko ba tax na may ñu leen cinq jours de gars yi na bar yéen a ko doon laaj oto blindé pour président Ousmane Sonko Thank you.